tey ci altine bi fukki fan ak juróom ci weeru mars ñuy amal téeméer ak ñeent fukk ak benneelu appelu Seydina Limaamu Laay almahdiw fii ci Yoff Layeen nag soo fi duggee rek li ngay njëkk nemmeeku rek moo di seeni yére yu weex ñii di taalibe yi nag ñu ngi fësal rek seen te tey ci bés bu sell bii kiy woote ne mën a woon démb mën a tey yëg-yëg boobu rek lañuy ñuy am ñun suñu yëg-yëg moom suñu yëg-yëg saa su ne saa su ne dafay des parce que ñun suñu xol dafa dee ci moom ba pare moo tax euh, suñu yëg-yëg du bés bii rek lañ koy am maanaam saa su ne buñ koy romb yëg-yëg bi dafay gën a yokk. ah tey nag maa ngi yëg maa ngi am mbégte mu rëy waa ci appelu Seydina Limamou Laye bi nga xam ni yoor-yoor la woote woon muy heure bii mu taxaw fii ne aji boo daan yàllaay yaa max saral insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum ñun ko ban rasulullahi mu ni Mouhamed ma weexoon démb ñuul na tey. ci der bu weex la tàmbalee woon mujje fii ci der bu ñuul ñu ñëw fii nag ci bisu yoor-yoor bi di ko féete ñu ànd ak mbégte mu rëy ak kontante te xam ne fii ñëpp a fi teew ndax bàyyi laay nit ak jinne la woo nit ñaa ngi fi jinne yaa ngi fi ñëpp a ngi jaxasoo ñu ngi nii ñëpp kontaan nañ tey. ñu ngi kontaan ci appel bi ndax bis la boo xamante ni moom rek la waa ahlulaay am ahlulaay ndax mooy bis bi Seydina Limaamu ne ajibu daaya laay muy goreel der bu ñuul ndax mu ngi ko wote en 1883 ni maay Mamadou naar ba weexoon ñuul na ñëw nag indil nu diine ju sell indil nu texe àddina ak bu àllaaxira kon bis boobu sax su ñëwee li war bépp saaba mooy taxawaat fàttaliku ka daa di ñaan yàlla soxla yi surtout fi réew mi toll yàlla def fi jàmm yëg-yëg bi ñu ci am daal mooy sant yàlla rek. waaye nañ ko daan amalee wuute lool ak ren ndaxte bu ñu sukkandikoo nag ci ndigal bi nga xam ne xalif bi jox na leen ko tax na rekk ba ku nekk rek toog nga gox ba nga dëkk amale fa li nga xam ne moo di appel bi waaye terewul ñenn ci taalibe yi. ñëw nañu rek ngir féddali li nga xam ne moo di seeni kóllëre. ñu ñooy soldaatu bay seeti caw wér bi daana fekk ñu nekk yooyu mais lépp ak sant la parce bàyyi laay alayhi salaam dañuy leen bëgg seen bopp ñëw wuy si ma kon nag loolu bu ko ootee ñu ñëw dañ ko si fekk si moo njëkk woote ak set njëkk a woote lii nii li xalifa bi wax def nañ ko ñëpp topp nañ sart yi ndax li nga xamante ni moom la yàlla balaa bi suñu dëkk bi appel bi heure bi daa fii daa dana fees del daa daaw fi xat laayeen moom ku leen xam-xam ni ci ndigal ndigal la ñuy wéy euh, ñi dëkk yoof ñëw yoof ñi dëkk euh, euh, Médina de Médina ñi dëkk Cambérène toog Cambérène waaye du ñàkk nag lenn ci ñi nga xamante ni nu ñàkk gunge sàng yi ndax day am jëmm yu kenn du leen bàyyi ñu wéet looloo waral nga gis fi yenn kilifa yi ñu ñëw wéetal leen ci waaye ñoom lu nu wax rek loolay li am ndax taalibe moom amul lu dul nu jox ko ndigal mu jëfe kalaay maxtaar na différence bi lay ndax man mii di wax ak yow nii sama sëriñ dafa waroon a ñëw mais ñëwul ndax moom mu ngi si Espagne sama sëriñ baayam mooy ma Ibrahima Séni yi ma Ibrahima Séni rakk la si xalifa bi taawam bi nga xamante ni moo nekk fii di maam maxtaar lay kooku mooy sama sëriñ daa waroon ñëw si appel bi mais ñëwul kon loolu noonu rek daanaka heure bii nii tey li ma sol si weex nii lu tolloox 15 euh, ans wa ngi nii maa ngi door a fekkee lu mel nii sol lu weex ndax daaw ma fekkee lii mu ma daa fekkee sama tëni nekk si li nga xamante ni mooy woote bi organiser li nga xamante ni mooy gan yi toppatoo gan yi. ki gis nga man mii dama daan xat ba daaw ma ñëw yoor-yoor bi bala maa ñëw damay fekk mu tas waaye gis nga ni tey libre naa ñu bari dinañ mën a ñëw delluwaat seen kër yi te du am benn problème wax dëgg yàlla. pour man. ndax yëg-yëg la li jëm ci yàlla ak yonentam ruux la ak xol te ñun sunu xol yëpp Seydina Limaamu alayhi salaam moo ci ne sun ni woon toog leen ci kër yi appel bi amul suñ toogee ci kër yi aussi dañuy dund wooteb Seydina Limaamu bi dinañu def ay kaamil dinañu def ay sarax dinañu def ay ñaan donc nag sunu ko yolomalee ngir xam ni nit ñi mar nanu mar nanu leerug Seydina Limaamu googu ba tey ñu autorisé ku ne def ko ci dëkkam suñu ñëwee ci urumu Seydina Limaam bi sant yàlla. ñii di ndongo yi nag ñu ngi respecté rek li nga xam ne moo di mesure barrière yi takk seeni masque ngir rek wootu li nga xam ne moo di feebaru coronavirus. te moom dafa jiitu mbas mi kon mbas mi yàqalu ñu dara ñun.